alors bu leen fàttee ci kanam tuuti dinañ dalal Babacar gay nekk ancien ministre ancien député jiite woon itam ay jamono euh, conseil régional bu Kaffrine dinañu waxtaanee ci tolluwaayu réew mi wàllum politique ak euh, li xew yépp ci dëkk bi ak assemblée nationale ak yu ni mel léegi ñu euh, egsi ci jàngal beeg Souleymane Niang Souleymane ñu ngi lay nuyu di la ziar. soxna Nata maa ngi lay fay. El Hadj Malick Chérif euh, Marcel di nuyu waa régie hmm, ci suba ñu ngi doon waxtaanee ci wàllum infrastructure euh, ci sommet bi nga xamante ni amoon na fii ci Ndakaaru ñu jagleel ko financement infrastructure yi ci Afrique tey nga bëgg a taxaw tuuti ci euh, li nga xam ne moo yenu maanaa ak li yenuwul maana si on peut traduire ça ainsi hmm. cohérence et incohérence des infrastructures sous Macky Sall c'est ça waaw li nga ci li nga ci jublu moom mooy xëj na junj. Euh, ay tendance yoo xam ne dafa am ci doctrine bi nga xam ne moom la am ci dëkk bi en matière de d'infrastructure ma fàttali ni euh, Sénégal comme yeneen i réew yu nekk ci Afrique ak yeneen continent ci àdduna bi dañoo am retard bu doy waar ci infrastructure contrairement à certains pays ma jox la benn misaal. Mm-hmm. tali yi tey jii boo jëlee tali. Euh, d'ailleurs boo xoolee suñu suñu programme triennal d'investissement public 2023 2025 euh, c'est quelque chose comme huit mille sept cent milliards yoo xam ne dañ koy investir mais pas seulement ci ay euh, ay tali ay programmes yu bëri la mm-hmm. investissement état en général mm-hmm. mais boo jëlee somme boobu li ci gën a bëri presque presque trois mille milliards yoo xam ne ministère des transports terrestres désenclavement et des infrastructures moom mooy ministère bi nga xam ne moom la Mansour Faye euh, yore c'est c'est 33 plus de 33 pour cent euh, des 8 milliards 700 dans les trois prochaines années yi nga xam ne ci ministère boobu la jëm parce que projet yi gën a mag boo dindee yenn exception yu nekk si yenn ministères yi yu mel ni ministère de la justice programme de réhabilitation euh, des des infrastructures du ministère de la justice c'est 250 milliards de francs CFA mais yeneen projets yi nga dindi quelques projets de l'armée aussi gendarmerie et cetera euh, yi si ëpp maanaam ci ministère boobu la nekk te li ci gën a bëri boo dindee TR bi nga xam ne dañ koy yokk ba AIBD mhm. presque 330 milliards dont 267 yoo xam ne AFD moo ñu ko jox on reviendra là-dessus tout à l'heure euh, beneen bi BRT lay nekk nga teg ci encore milliards yoo xam ne état bi moo koy def day dem ba 280 et quelques milliards yoo xam ne ci ministère boobu lañ ko logé euh, li si gën a bëri ay pont la pont Rosso pont Kédougou euh, am na yoo xam ne jàll na ba pare ay pont bi nga xam ne moo nekk fara diggante Sénégal ak Gambie et cetera donc dañoo am retard bu mag genre projet yooyu presque amatul ci yenn dëkk yi nga xam ne euh, dañoo dañoo saturé de ce point de vue là France kenn defaratu fa tëli. oui parce que am nañ ko parce que tëli yaa ngi fépp. et c'est ça qui explique aussi que non seulement ñun ñu war a def ay investissement yu bëri. te retard boobu lu ko indi aussi xam nañ ko mm-hmm. programme d'ajustement structurel yi dans les mm-hmm. années 80 maître Abdoulaye Wade bi mu ñëwee moom moo njëkk insuffler doctrine rattrapage infrastructurel pour pour combler gap bi nga xam ne suñu réew amoon na ko te mu doon gàllankoor lu bëree bëri bëri suñu koom-koom embouteillage yi euh, inéquité ak inégalité bi nga xam ne moo amoon diggante ville yi rawatina dakaar ak le reste du pays bi Macky Sall ñëwee président Macky Sall la ko gën a renforcer mu des nag pertinence su yenn investissement yi ak surtout structuration financement ak ni ñu doxalee projet yi waa moom mooy euh, gouvernance su euh, yenn projet yi notamment bu nekkee xaalis état kese moo ci dugg parce que bu kenn naatable nii AFD bu la joxee xaalis rawatina lu tolloog deux cent soixante euh, sept milliards par exemple pour ñu ñu ñu ñu ñu def ay Diamniadio AIBD par exemple Euh, au plan ferroviaire. Mhm. Euh, bu la banque mondiale joxe euh, deux cent soixante dix neuf milliards pour le BRT et cetera et cetera bu kenn naatable ni gouvernance bi c'est contrôlé. Mhm. c'est contrôlé wala bu ñu nekkee ci PPP. Euh, bu ñu nekkee ci PPP nga xam ne ay compagnie d'assurance dañ ciy dugg ay banque de développement dañ ciy dugg euh, ay ay banque privée dañ ciy dugg euh, les sociétés privées yi nga xam ne ñoom ñooy partenaire état bi dañ ciy dugg et cetera indi seen i ay procédures et cetera mhm. loolu le le problème de gouvernance se pose moins que bu nekkee ni état bi dafa financer mhm. sur son budget ay yenn infrastructure donc grosso modo mhm. effectivement globalement il y a une cohérence il faut le dire il y a une cohérence dans le sens où effectivement il faut rattraper le gap infrastructurel dans tous les domaines euh, am na ay projets réhabilitation ay stade la mhm. am na projets de construction mhm. euh, bu ngeen ay mhm. euh, des infrastructures de la justice mm -hmm. des l'armée de la gendarmerie l'énergie etc il est évident que il fallait mhm. et il faut continuer à le faire mu des nag ni ñu koy doxalee ak yenn choix yi euh, non seulement choix d'investissement bi ban infrastructure loolu mooy exactement incohérence yi moom mooy yan priorité mhm. hein tout le monde se pose la question du stade euh, maître Abdoulaye Wade euh, tey jii financé nañ ko lebu nañ pour def ko pare na joué nañ ci quelques matchs ci diggante bi maintenance bi ça coûte excessivement cher amul benn stratégie de rentabilisation et cetera euh, dans une moindre mesure Dakar Arena mais le problème est le même euh, loolu on se pose la question de la pertinence tout le monde sait qu'on a besoin d'infrastructures sportives aussi mais de quelle dimension est-ce que tu prends un stade de 65 000 places euh, à un certain niveau euh, wala da ngay def des stades bon euh, actuellement c'est le cas on a les deux approches on a le grand stade euh, euh on a Léo, Léopold Sédar Senghor qui va être réhabilité, Elimane El Fall, Lamine Gueye, etc. Voilà. Mais on a aussi les stades en construction à Kédougou, à Sédhiou, vous avez vu le ministre en train de on a il faut de tout pour faire un monde. Mais lépp lu ñu mënta def aussi il faut mu am cohérence dans les choix, cohérence dans la structure de financement. et cohérence dans l'exploitation tey jii euh, ñu ngi ñuy wax exploitation TER peut-être que TER bu ñu négocier woon autrement notamment avec le constructeur de train bon c'est vrai SNCF c'est pas que la maintenance c'est aussi euh, xam nga loolu yëpp ay logiciel la ay expérience il faut nga am ay outils pour exploiter ce type d'infrastructure donc peut-être que le choix s'imposait presque mais peut-être qu'il y avait d'autres choix yu ñu mënoon def pour maintenance bi par exemple ñi ñu jaay train yi mhm. mun nañ ñëw rek jaay ñu train pour autant d'argent mhm. euh, je sais pas ce que représente l'achat des des rames des trains ci sept cent quatre-vingts et quelques milliards yi nga xam ne moom la ñu wax ni moom la ñu dépensé ci TER bi mhm. mais il est évident que même bu nekkee cent milliards foo jënd cent milliards wax dëgg yàlla ci contrat bi war na am Euh, loo xam ne maintenance bi quand même war na la mën a teggeeku pendant quelques années même bu nekkee da nga koy fay am quand même am service après vente euh, ñoom ñoo defar seen train ñoom ñoo xam nañ koy kii bon euh, donc y a des y a des y a des <coughs> sur des choix de montage et de structuration de financement ñaata lañ ciy def ci xaalis lan la ñu lebu lan la ñu ànd ak ay privé lal la ñu bàyyi ak des privés pour ñu si am xaalis lan la parce que pourquoi pas le stade par exemple stade bi pourquoi munul am euh, un partenariat privé boo xam ne da ngay defar stade nga jox ko kenn koo xam ne moo koy exploité en privé pourquoi di la fay ay redevance wala euh, yaa xam nu ngay nooy waxtaanee ak moom mais là où on aurait pu avoir une opportunité de le faire on ne le fait pas ce qui fait que ça pèse sur les finances publiques et là où on aurait pu avoir l'opportunité euh, de de de vraiment mieux négocier on le fait pas et on se retrouve avec ñun charge yi ñun la. Mm-hmm. parce que si on entend bien ce qu'on a dit sur le TR. Mm-hmm. ñun ñoo moom patrimoine ñoo jël risque transféré nañu risque bi. Mm-hmm. mëntuñu dellu Alstom naan ko ay train bi nii train bi nële euh, ñun ñoo ko jël si suñu patrimoine et cetera mais li nga xam ne moom mooy exploitation bi parce que SNCF exploité wul pour perte. donc bu amee perte rek ñun ñooy compenser alors que xëj na bu demee woon neneen ñun mën nañ exploiter liñ ci am ñu am ko ci malheureusement euh, et c'est ça le c'est une règle presque universelle mhm. les privés gèrent mieux que le public euh, donc euh, c'est un mal pour un bien aussi xëy na bu nekkoon ñun ñoo gérer woon suñu bopp exploitation TER bi mhm. duñ toll fi pour parler de gérer suñu bopp parlant toujours d'incohérence ci ci wàllu financement notamment on a entendu hier le président de la République revenir ci li nga xamante ne moom mooy euh, financement yeeg dette yi muy engendré en général euh, une période assez courte pour wàllu remboursement yeeg yooyu sans compter le taux d'intérêt qui est à 3 pour cent bu ñu bu loolu weesoo mu am itam 12 pour cent boo ne mën nañ ko nemmeeku ci assurance yi muy euh, yi ñu ciy laaj euh, donc comment faire également pour ne pas entrer toujours dans cette logique d'incohérence pour ne pas que tey ñu mën a euh, ñu mën a dépendre toujours de la main extérieure de ces partenaires là est-ce que on peut dire que le Sénégal ou l'Afrique tout entière est prête à, à s'autofinancer dans ce genre ba euh, amul amul incohérence c'est le principe de réalité c'est-à-dire boo jëlee tey portefeuille projet yi ñu am yi mm. euh, euh, actuellement au Sénégal d'après mm. euh, d'après le, le ministère des des finances mm -hmm. c'est de vingt quatre mille milliards de francs CFA en projet mm -hmm. d'investissement mm -hmm. yëpp boo jëlee PTIP bi pour les trois prochaines années moom mooy wax sànq mais total bi boo ko jëlee Euh, c'est-à-dire boo demee au-delà de deux mille vingt cinq. plus euh, yi nga xam ne ñu ngi koy defar euh, c'est en cours actuellement. Mhm. vingt quatre mille milliards vingt quatre mille milliards c'est une fois et demi notre PIB. c'est-à-dire loolu état mënu ko financer boppam. Mhm. c'est pas possible. Oui. Euh, d'ailleurs d'ailleurs boo jëlee structure financement bi. Mhm. Euh, sur les les les suñu PTIP bi nga xam ne moom laa doon wax mooy les trois prochaines années. Mm -hmm. bah plus de cinquante pour cent c'est des emprunts. Euh, l'État 2 euh, pour cent la ciy dugal euh, si si je ne m'abuse pour le reste ay dons la ay subventions wala ay emprunts wala ay privé no privé yi sax ñoom ñooy 2 pour cent c'est pas c'est pas beaucoup l'État tamit c'est pas beaucoup li si gën a bëri ay emprunts la et dans une certaine mesure ay dons ay ay ay subventions donc financement bi à la kulli il faut ñu dem wuti ko mais est-ce que on est cohérent la manière dont on va chercher les suñu ay infrastructure la question est, peut être mitigée sur je pense que les montages sont yenn projets dañoo amul marge encore une fois bu nekkee AFD moom moo la lebal 267 milliards pour benn euh, nga continuer kii euh, desserte ferroviaire AIBD bi euh, presque ay conditions mooy imposé ci yow y compris les conditions fan ngay approvisionné woo et, et c'est ça toute la logique parfois aussi ce qui semble être une incohérence ne l'est pas bu nekkee danga jël réalité bi la réalité moom mooy que ni ki la abali gët moo lay wax fi ngay xool bu la AFD AFD loolu mooy seen rôle mhm. am na yenn suñu yenn projet yoo xam ne danga nga ciy am AFD am ci béppi euh, en France euh, am ci même des banque privées française tu espères que avec tout cet argent là da ngay dem jëndi en Chine wala da dem jëndi en Turquie non euh, de la même manière bu la Turquie seen euh, Exim Bank euh, lebalee xaalis le le principe des Exim Bank c'est ça c'est pour soutenir l'exportation des sociétés de la de, du pays Exim Bank Chine mhm. bu la bu xaalis autoroute autoroute bi ñuy bi ñuy euh, oui Ila Touba mooy tey jii on euh, Mbour Mbour Mbour Kaolack Mbour Kaolack sont les Chinois euh, c'est un financement chinois il faut pas à avoir une société française là-bas société moo koy defar maintenant loolu FMI wax na ko ak Banque mondiale actuellement benn ci gàllankoor yi nga xam ne moom moo mhm. tënk économie adduna bi rawatina économie ñun suñu réew yi moom mooy euh, les conditions financières qui se sont durcies moom mooy que ni taux d'intérêt yi dafa yéeg mu ngi naan 3 pour cent mais même 3 pour cent mënutoo ko am ci marché bi parce que euh, bu nekkee fet dafa euh, euh, yokk ses taux directeurs banque européenne banque centrale européenne yokk see taux directeurs ba suñu banque centrale ñun ba sa yokk ses taux directeurs ça veut dire que pour nga am xaalis sur le marché financier international notamment booy jël euro bon genre affaire yu mel noonu. day mhm. les les taux sont indexés. dañ koy mhm. indexé ci yu mel noonu ay Libor ay Euribor te yooyu tamit dañ koy indexé si banque centrale yi loolooy indi renchérissement coût de l'argent mhm. donc li nga doon am tey par exemple au Sénégal suñu doctrine en matière d'endettement moom mooy ñu privilégier les dettes à taux concessionnel moom mooy nga xam ne taux yi dafa wàcc-wàcc encore faudrait-il que nga trouver Euh, ces ces taux-là évidemment il y a les banques de développement mhm. euh, BADEA BID POAD BIDC mhm. euh, BAD et cetera et cetera ñu ngi def seen kéemtalaay kattan mais parfois suñu dëkk yi dañu nangu mhm. jël ay ay ay ay endettement ay emprunt à des yi nga xam ne à la longue day insoutenable c'est ce qui arrive au Sénégal c'est-à-dire bu ñu wax dette bi le problème c'est pas l'encours l'encours c'est problème parce que boo xoolee ni en 2017 en 2017 on était à moins de 5000 milliards d'encours de la dette d'accord en 2022 on est à plus de 12000 milliards c'est-à-dire ça a plus que doublé en six ans hmm. même avant période boobu boo ko jëlee dafa doublé woon encore dans une période très courte mais c'est pas ça le problème c'est le pas le service ce sont les intérêts et les commissions moom mooy dugg suñu budget yi xoolal suñu suñu poste boobu nu mu yokkoo li ko indi moom mooy taux yi nu ñu yokkoo taux yi nu ñu yokkoo on emprunte à des à des taux élevés mm-hmm. évidemment quand le président dit qu'il faut euh, euh, d'ailleurs là où je suis un peu dubitatif c'est quand il dit on cherche à être le continent le plus beau c'est pas ça mm. on cherche pas à être le continent le mm. plus beau on on cherche à euh, euh à à mettre en place ay infrastructures yoo xam ne dañ ko soxla pour suñu développement. des désenclaver suñu réew yi. Mhm. tabax ay ay tali. Mhm. tabax ay pont mais des infrastructures sociales aussi. Oui. c'est-à-dire ay hôpitaux kenn mënul wax ni hôpitaux kenn tabaxoo ko école université. c'est-à-dire il faut juste voir proportion yi. Mhm. ak les priorités tey ñu ngi defar ay sport. ay euh, stade ak yi ni ñu ngi defar ay hôpitaux. ñu ngi defar ay écoles. et cetera mais boo ko rapporté li nga xam ne moom la ñuy dépensé ci yenn infrastructures yi y a peut-être un rééquilibrage à, à faire, faire. Mmh. sauf que évidemment pourquoi on a plus euh, d'argent avant plus euh, d'infrastructures dans certains domaines parce que c'est plus facile de trouver l'argent là ba tey jii pour nga am benn bailleur bu la euh, wala benn banque bu la lebal pour nga defar ay ay ay hôpitaux ay et cetera c'est un peu plus difficile que de faire benn autoroute à péage à péage tey Dakar Saint ah oui euh, alors l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le ministère de Mansour Faye euh, sa part dans le PTIP 2023 2025 et de 33 pour cent avec presque 3000 milliards sur les 8000 milliards c'est euh, justement euh, l'autoroute non non c'est ah, l'autoroute ah Dakar Saint-Louis c'est plus de 700 milliards de francs CFA yoo xam ne mhm. mu ngi bokk ci kii donc on a beaucoup beaucoup de d'infrastructures de ce mhm. ci biir suñu PTIP bi et peut-être un peu moins parce que à part les 33 pour cent ministère euh, désenclavement des transports terrestres euh, et cetera c'est le ministère de l'agriculture moo ciy topp après tu as ministère oui et tu prends des ministères extrêmement importants qui représentent 2 pour cent tu prends le ministère de l'éducation nationale ci PTIP bi c'est moins de 3 pour cent euh, c'est pas beaucoup assainissement c'est 4 pour cent sur le PTIP 2023 2025 un cent les infrastructures routières les ponts et cetera les autoroutes et cetera c'est 33 pour cent encore fois presque 3000 milliards sur les trois prochaines années euh, c'est c'est beaucoup boo ko rapporté ak yeneen infrastructure il y a le président par exemple Paul Paul Kagame qui qui trouve une parade qui parle de financement mixte tey est-ce que tey loolu warul nekk la voie du salut pour l'Afrique pour que ñu bañ a am yenn taux d'endettement yi ak euh, di fay bor bu nga xam ne samay génération génération yi ci topp yëpp dañ koy fay yoon boobu la Sénégal bëggoon jël mais dafa amoon gàllankoor boo jëlee suñu PSE bi mmh. euh, surtout deuxième phase bi vraiment on comptait beaucoup sur les partenariats public-privé mais objectif yi ñu amoon plus de mille cent milliards de francs CFA on a réalisé que trois et quelques milliards c'est un échec pourquoi parce que cadre juridique bi c'était pas en place c'est pour ça qu'il y a quelques années il y a un an deux ans euh, ñu adopté la loi sur le PPP et on a mis en place euh, tout l'écosystème c'est-à-dire euh, l'unité d'experts là mm. euh, une APP bi là plus Euh, la structure interministérielle bi nga xam ne moom mooy valider mooy joxe les orientations et tout ak euh, vraiment pour pour pour gérer le portage parce que les privés ñoom tamit du ñu dugal seen xaalis si lu ñu xamul ils ne prennent pas de risque donc pour mu am un vrai partenariat public privé c'est-à-dire moom mooy financement mixte boobu il faut que environnement bi favorable mm. on compte euh, mettre en place les premiers PPP dès cette année 2023 il y a je pense quatorze projets yoo xam ne euh, récemment euh, gars yi retenir nañ ko parce que un potentiel vraiment de PPP sur ces projets là euh, il faut aller vers ça mm-hmm. et tant mieux pour la gouvernance parce que quand tu es dans un PPP mm-hmm. il y a peut-être un peu plus de contraintes parce que da ngay am ay banque de développement da ngay am ay mm-hmm. compagnie d'assurance da ngay am ay société privée et cetera il faut qu'on aille plus vers ça qu'on finance davantage euh, en, en faisant appel mais l'inconvénient maintenant des PPP mooy euh, c'est le CET euh, construire exploiter et transférer euh, qui fait que euh, tey boo defee infrastructure par exemple autoroute euh, Dakar Saint-Louis mhm. boo ko defee en PPP le privé il faut mu génn ci mhm. ça va te faire des péages mhm. bu ko defee péage ben encore une fois c'est l'usager des services publics qui paye qui paye qui Euh, avec les risques d'augmentation euh, des, des, des, des, tarifs, euh, etc. Et puis, mm -hmm. Mais vraiment, voilà, euh, encore une fois, je pense que globalement, on, a, euh, on est sur la bonne voie. Mm -hmm. Il faut investir dans les infrastructures, mais il faut mieux investir. Mm -hmm. Le Premier ministre l'a dit euh, récemment. Mm-hmm. Il a dit au DG et au ministre, n'investissez pas plus. Mon déclaration de politique générale, n'investissez pas plus, investissez mieux. on peut rendre l'appareil à l'État du Sénégal. Ce n'est pas la récréation, chéri. L'État du Sénégal doit investir mieux, plus peut-être, mais mieux. Ça veut dire quoi? Euh, il faut pas qu'on vienne après avoir dépensé des sommes faramineuse sur des infrastructures nous dire que oui euh, ça se justifie mmh. la fin justifie les moyens mmh. peu importe l'argent qu'on y a mis il y a une rentabilité socio-économique bon ce qui est une sorte de voilà c'est pas une invention du Sénégal mm. mais euh, franchement euh, c'est tiré par les cheveux il y a une rentabilité socio-économique de l'investissement ben, qui peut le plus peut le moins mm. bu nekkee on recherche le, la rentabilité économique euh, socio-économique sur nos investissements mm. on aurait pu faire la même chose sur l'autoroute à péage et laisser les gens ben euh, voilà mu bañ a am une exploitation par un privé oui. ben, qui se fait beaucoup d'argent sur le dos des gens des parce que il euh, y a une pertinence sociale à désenclaver Dakar avec une autoroute euh, bien faite boo xam ne xëy na les gens n'auraient pas eu autant d'argent pour euh, pour euh, euh, j'espère que Chérif n'a pas commencé le débat avec notre invité Babacar Gaye n'a pas encore terminé alors je vois ici que infrastructure yi seen état ci Afrique subsaharienne dafay réduire 40 pour cent productivité des entreprises à hauteur de 40 pour cent sànq ñu ngi waxtaan ci concentration bi bu ñu gisee lu mel ni Diamniadio dañ fa ba maanaam boo génnee Dakar dem ba Diamniadio fa lañ concentrer l'essentiel des infrastructures yi ñu doon peut ci yeneen villes yi am na et tout tey jii nii ban impact la euh, pôle urbain yooyu zone urbaine yooyu noonu yu bees yooyu am ci ci wàllum euh, développement infrastructure ak tam suñu wàllum koom. je pense que euh, intérêt des zones économiques je sais pas si on parle des zones économiques spéciales. intégrées les intégrées mais mm. honnêtement mënuñu lam-lamee aussi l'intérêt de mm. ces zones économiques qui permettent de désenclaver par exemple port de Dakar. Euh, boo jëlee Sandiara nga jël euh, le port sec qu'on veut mettre en place euh, à à Tambacounda et même à Tivaouane évidemment ay infrastructure la ak ay investissement yoo xam ne am na solo c'est important mm. il faut reconnaître aussi que c'est vrai il y une concentration des des des des investissements dans les zones urbaines mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de pistes rurales, en termes de ponts, en termes de désenclavement. Notamment des avec autres... le PUDC. Exactement, oui, euh, et Puma. Avec Puma oui. euh, Promoville, mm-hmm. euh, il oui. euh, y, y, a beaucoup de choses qui sont faites de ce point de vue-là. Après, macrocéphalie des, des, des, villes et surtout des capitales dans les pays africains, c'est une réalité euh, qui dit macrocéphalie, dit inégalité aussi dans les besoins d'investissement. Après, euh, encore une fois se pose la question de la pertinence des investissements mmh. est-ce que da ngay investir pour répondre à la demande ci biir ville bi nga xam ne moom mooy capital bi wala da ngay investir pour délocaliser capital bi évidemment ce sont pas les mêmes montants mmh. c'est pas la même durée d'investissement mais c'est un choix à faire à mm. opérer mm. parfois aussi le choix il est dans le juste milieu c'est-à-dire euh, évidemment Diamniadio on aurait pu avoir un meilleur choix euh, mais y a un mix. Mm -hmm. c'est-à-dire à l'intérieur de la ville les autoponts euh, réhabilitation de la voirie. Oui. Euh, mm -hmm. infrastructure euh, euh, sociale yi euh, muy ci njàng mi muy ci pàcc mi et cetera. Mhm. il faut répondre à cette demande dans les villes. D'accord. Dakar va vers une population de cinq milliards. euh, je pense à l'horizon 5 millions 5, 5 millions pardon à l'horizon 2030 ou 2050 euh, millions je pense et millions 2050 chose comme ça euh, il faut répondre à cette demande mhm. euh, qui est corrélée à la démographie galopante mais en même temps il faut trouver des solutions structurelles et c'est mhm. maintenant que ça doit commencer oui. donc faut pas que président di braquer ou quand les gens parlent de ses choix d'investissement il n'investit pas contre l'intérêt du pays, contre l'intérêt des populations. Oui. Les, les gens ont le droit d'interroger la Avoir... pertinence et la gouvernance euh, la pertinence des investissements mm -hmm. et la gouvernance euh, ben, justement de, de, de, ce portefeuille d'investissement bi ñuy def comment c'est financé oui. comment c'est géré mm -hmm. euh, les, les sous de l'État comment c'est utilisé parce que franchement on n'attend pas de lui euh, juste que mu ñëw euh, avec l'argent faire n'importe quoi on attend de lui qu'il utilise le moindre denier public de la manière la plus efficiente qui soit voilà le, le la fin ne justifie pas les moyens oui. euh, il est important que mm-hmm. l'on comprenne que on gère les, les finances publiques, on a un devoir de gérer au mieux les finances publiques. C'est pas de venir dire, mm-hmm. euh, peu importe si on a dépensé. Et ça, ça fend le cœur quand tu entends les gens dire, mm-hmm. peu importe qu'on mette 2000 milliards sur une infrastructure, l'essentiel que, euh, à la fin, les gens euh, soient satisfaits et parfois de la beauté de l'infrastructure, etc. Ça n'a pas de sens. Oui. Merci beaucoup Souleymane, merci. alors euh, ñu dalal suñu gan egsi na muy Babacar Gaye